عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك وابيق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم sama turandoo mag ñu baax ñi fi ñëw ñoom ñëpp ci njàngale moomee ci lañu nosu jël téereb yàlla bi taj ko ba yàlla gërëm leen ñu war a sant Cheikh Ibrahima tudd ngeen parlement Sénégal bi ma fa nekkee samay tànk samay wagg maa ngi ko sosoon ci taalibey Cheikh Ibrahima Niass yi nekk foofu te ñu bari lool di ay sénateur di ay député te bëgg lool Cheikh Ibrahima fu ñu la gis dañ naan la Baye Niass Sénégal nga ni waaw ñu ni ñun ñu ngi sa gannaaw ñooñu ànd ak man ànd bu rafet foofu kon ma jàppale ci liggéey bi ba li ma fa def ma man ko ndax loo bëgg di ko def da ngay dem ci ki nga xam ne kii moom la mu bëgg moom ma nga ca sawet moom nga leen di nax alayka salaatullahi thumma salaamu fa barhaamu jiddun aashiqun fika